d' accord alors gis nañu instant bi euh, coow bi bari na ci wàllum politique ñu ngi tudd parce que ñu ñëw dèjà ci euh, Ousmane Sonko bi nga xam ne def na ko Jean-Luc Mélenchon université ñu waxtaan bi liñ ci gën a jàpp mooy Ousmane Sonko dafay dafa ne dañoo toléré mbirum góor jigéen ci ci dëkk dèjà lan nga jàngatee loolu ak polémique bi ci am non ni ma ko jàngatee mooy man tur bi sax ruus naa ko tudd man parce que jullit pire la xam naa sam bopp moo tax ma ko wax dëgg yàlla mais rafetlu ma Sénégal ak fi mu toll instant nii jamono ji mu toll Ousmane Sonko ak euh, président Diomaye bi ko jëlee mënagul sax trois mois je crois que ñu war a defar Sénégal mais ñëw ñëw di yàqaat mais ñu may gën a wax ñoom laay sampaat baaraamu tuuma muy Ousmane Sonko ak euh, président Diomaye parce que am na loo xam ne ñoom war nañ ko rus am na loo xam ne war nañ ko jomb pour askan wi. di leen ko wax wala di ko séntoo pour man du woon sax seen première liggéey ñuy laal lépp loo xam ne wàllum borom ñaari tur la maanaam. mais Sonko en tant que euh, Pastef la demee que premier ministre. non amul en tant que Pastef nekkatul Pastef Ousmane Sonko. non xaaral rek premier ministre la premier ministre la. premier ministre ak ak Pastef fan moo gën a fort mois bi ci Sénégal. moo gën a fort kon premier ministre la demee. non non non non man d'accord ma loolu waaye léegi wax na lool man li ma wax man laa wax man man d'accord man gisuma loolu man sama gis-gis kon ku nekk sa gis-gis man suma ma seen du taxaw foofu parce que dafa am lu ko Sénégal di xaare te xam na ne moom dafa weex dunq je comprends nga nit boo weexee dunq am na xam ne lu bëri da nga koy moytu mais du woon moment bi ñuy may xale yi lu ñu wax wala ñuy may ñeneen lu ñu wax am na kuñ ci téye démb je crois que comprendre nga. kon waaw kon dèjà ñoom du ma ko wax fentoo parce que ñoom ay duñ fentoo ay jullit lañ comprendre nga mais ñu ngi. rafetlu ma ko xaaral bu àggale rafetlu ma ko dama koo dama koo sip li mu wax parce que nit ki lu ñaaw waru ko génn sa gémmiñ pour man rafetlu ma ko benn yoon dafa ñaaw surtout kilifa surtout ko am ay njaboot. suñu koo xamante ne dañ ne tey mooy kilifa ci dëkk bi nga génn kàddu yooyu di ko jëmee ci moom dafa ñaaw je comprendre nga nekk loi moo fi nekk loi da koy teg ci yoon dafa ñaaw ànduma ak moom benn yoon je comprendre nga mais tey maa ngi gisaat lu bare bari ci internet bi tey eh, muy. déggoo li ma la wax mais ku fi génne kàddu ñaaw ñu teg la ci yoon yoon Ousmane Sonko moomu ko jamaay moomu ko yoon man mii dafa cee am paar yow mii dafa cee am paar fii ku fi jàdd yoon ñu teg la ci yoon nit da ngay wax wax bu rafet surtout kilifa boo koy wax da nga koy wax wax bu rafet jëmee ko ci moom parce que dafa am nekk ci moom ni ginnaaw ñu bëri man waxuma ay passif dañoo romb ay passif nekk du ay passif instant yi c'est le pays muy ay passif jëmaay fi ay passif passif après président lay wax de la République kon dañ ko war a respecté. d'accord kon fii amul Macky Sall ak même Ousmane Sonko bu jógee ak Diomaye tey ku fi teg lu yoon dañuy jàpp amul ay dictature dañoo jàdd yoon yoon teg leen ci yoon fii ku fi jàdd yoon dañuy teg ci yoon il se comprendre nga man mii tey su ma waxee loo xam ne waruma ko wax dañu may teg ci yoon te dama koy nangu ah comprendre nga mais wax bu ñaaw moo war a jeex Sénégal ba pare nañu arrêté wax bu ñaaw bi képp ku fi wax lu ñaaw ñu teg la ci yoon internet bi yàqu na léegi parce que wax ju ñaaw te wax bu ñaaw bu ñu la koy wax sa der saye même bu dul dëgg sax say njaboot sax bu ñëwee duñ comprendre gëm la wala dëgg je comprends nga il est temps ñu defaraat dëkk bi. Euh, euh, parce que dafa mel déjà expliqué la muy presse presse sénégalais dafa d'accord ci borom ñaari tur yi alors que presse internationale bi dañoo wax ni que euh, xam ne dañoo euh, loolu ñoom ñoo xam peut dañoo am haine wala amuñu mais man Jamra du ma ci wax parce que duma ak ñoom quoi man Jamra je sais pas xaw ma mais neexuñu ma. neexuñu ma man waxuma ay keneen man neexuñu ma daal. noo mosuñu ma neex non mosu mais mosuñu ma neex man am naa droit non xaw ma je sais pas xaw ma peut-être ñu ngi def lu baax mais neexuñu ma du ma wax ci ñoom. sérieusement non no rôle bi ak ñoom bokkul day dët ak ñoom neexuñu ma du ma wax ci seen li ñuy def macha allah mu ngi naaj mais du ma wax ci ñoom am naa droit du ma wax ci ñoom parce que xam naa itam ma ko du ma wax ci ñoom rôle bi def mu ngi naaj. macha allah ñu ngi liggéey seen liggéey ci réew mi parce que diine lañ fi nekkal mais man automatiquement neexuñu ma ñoom xam nga li ñuy def neex ma ak ñoom neexuñu ma du benn su ko li ñuy def neex na ma macha allah parce que ñu ngi xeexal diine te man ci diine ji laa bokk mais jëmm yi laa wax jëmm yi ñoom a duggul moo tax te man ku ma sa jëmm nag ku ma duggul du ma wax ci yow noonu la demee. d'accord euh, nga xam ne parce

doo xool liñ li jàlloon wala déedéet parce que cas bu nekk ak ni ko war a traité pour man nekk naa day def pardon ay affaire yooyu Bass Diakhaté dafa jàdd yoon moo tax dañ ko war a teg ci yoon pour prochaine fois keneen du ko def tey buñ ko bàyyi woon tey teguñu ko ci yoon gi nga keneen ku génn te loolu mooy taal dëkk bi loolu mooy taal réew mi moo tax président Diomaye Faye ba koy wax ne mu jóg ci loolu su ko naan nga mu jóg ci loolu loi bi li képp koo xam ne jàdd nañu teg la ci yoon yoon yoon mosu fee jóge man yàgg naa ko wax fi yoon mosu fee jóge ñu ñëw jàpp yëpp dañoo laal sa man maa ngi sama kër nii toog bu ma deful waxuma kenn du ma jël si kenn du ma woo téléphone mais boo defee rek da ngaa jege da ngaa laal tuuti même boo deful cent pour cent def nga trente pour cent foog ñoo xool ba xam yaa def cent pour cent yi wala mais ku deful jege woo kenn du la laal sa waay yoon du la fekk sa kër rek jël la te defoo dara yoon dafa sew gars yi nañu xool bu baax la ku ci mel ni Tunkara moom tamit euh, euh, mu ngi def polémique instant na mi mu wax borom sikkim boobu wax ñoom ñoo dëkk bi ñoom ay nekk Canada ñooñu ñoo dëkk bi ba tey ngi foofu toog barki Seexul Xadim billahi wallahi wa taala ñoom maanaam bëgguñu jàmm di am toujours dañuy am lu ñuy kaaj xam nga dëkk bi am safara barki Seexul Xadim ñooñu du ñu nit ñu baax du ñu nit ñu baax. sëñ Tuba du ñooñu ñoo ko wax n'est-ce pas ñoo ne ay cocktail molotov affaire yooyu kon kay xam nga kooku du baax man du ma ko def man du ma ko def du ma jël rab bugg gën a sew sax di ko jox kenn waxantuma lool kon ñooñu bëgguñu jàmm ci réew mi ah nañu waxante de. Euh, parce que ko doon teg ni ñoom ay euh, ministre bi fi nekkoon nu mu tudd sax euh, bi. Amadou mhm. moom moo doon moom lañ en tout moom lañ ko tegoon alors Tounkara génn wax lu mel bu mooy li ma la wax yow war a di mooy li wax ñoom maanaam dañuy nekk ci benn ka ba pare làqatu def leen jiñ ko pour ñoom ñoo koy def mais lépp day feeñ li yëpp li koy feeñal yàlla la yàlla moo rek moom moom moom dëgg te lu fa lu waay def fii ba cent ans bala ngaa dee dina feeñ wala boo dee dina feeñ fii yàlla rek moom moom dëgg est-ce que man nan laay def benn affaire di ko def ci su ba pare tourné di ko ji Ousmane ne Ousmane moo ko def te fekk Ousmane laalul ndax lan bu ko yàqal fi nga xam ne moom la Ousmane nekk pour ñu daanu xeex boobu dafa garaaw loolu boo ko defee yàlla nga ko defal xool sa diggante ak yàlla. parce que yaa ngi fen benn benn yaa ngi fen yaa ngi def lu bon parce que yaa ko jiñ uus te juus xëyul gontul yëgul tinul te yaa ngi koy def ci suuf di jox ay nit ay xaalis ci suuf ngeen def lan pour daaneel li nga xam ne mooy gouvernement bële pour forcer seen gouvernement te suuf yëgul tinul kon ñu ay yàqkat lañ voilà.